moom Serigne Modou Rokhaya Mbacké moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta rahmatullahi alayhim wa radi anhum ajmain ngir waajal màggalu njaareem ngir waajal màggalu kër yelli ni mu ko baaxoo def booba ba léegi ñu jàpp ko nag incha allahu rabbi samedi le 27 avril 2019 kon bu ko yàlla indee léegi mu yegg si yàlla noonu ci egg ak jàmm léegi ñu ñëw nag ci ki nga xamante ni moo yor kàddu sëriñ bi di sëriñ Cheikhouna Niang mi war a wax ci turu sëriñ bi sëriñ Cheikhouna bisimilah. a billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, mbokk yi ñu bokk lislaam ñi ngi leen di nuyu ku ci nekk ci euh, kàddug lislaam Eh, sa ay baat yi sell di ñaan yàlla na jàmm ak yërmande yàlla wàcc seen kaw eh, di fàttali rek bis bu mag boo xamante ne kenn fàttewu ko di bisu diine di bisu lislaam di bis boo xamante ne dañu ciy sant Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasul waaye itam di ca fàttaliku jàmbaari lislaam ja di sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké moom sëriñ Mouhamadul Mamoun moom maam Cheikh Anta moom Serigne Touba euh, bis am fii ci njaareem ci le 27 avril ak le 26 avril di ajjuma ak samedi bis yëpp itam ñu jagle ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine euh, Serigne Lamp Mbacke di ko yëgal ki nga xamante ne moo fi toogal Serigne Touba Xaadimu Rasul di kilifaam di léppam di Serigne Muntaxa Mbacke. ibnu Serigne Basiru ñi ngi ko koy yëgal tey sàkku ci moom ay ñaan moom itam di ko yëgal Serigne Cheikh euh, jëmb Fall ñi nga xamante ne mooy boroom bis bi ndax ñaari guddi yëpp bisam la ndax bis bi ren lépp maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko dara jaale kon ñi ngi ko ci woo moom itam di ci woo mbokki baay Fall yëpp ak kilifay Baye Fall yëpp ñi ngi leen ciy woo. waaye ñu fàtte benn yoon daaray xasida yi euh, ndax itam euh, ku ne Serigne Touba sa al sa xel dem ci alxuraan waaye ku ne Serigne Touba sa xel dem ci xasida yi kon ñi ngi koy fàttali itam xasi daaray xasida yi euh, lu ci mel ni ahlul minan ahlul ma mafatihul bishri ak kanzul muhtadin ak daayira yi nga xamante ne ñoo nekk ci njaareem yëpp rek mafatihul bichri bu kër Baay Laay ñëpp ñu ngi leen koy woo di leen ko fàttali xam ne daal bis bi bisub maam Cheikh Ibrahima Fall la waaye bisub xasida yi la bisub alxuraan la kon yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm di la 27 avril incha allahu rabbul alamin wasalaamualeykum wa rahmatullah wasalaam euh, jërëjëf sëriñ Cheikhouna Niang moom mi nga xamante ni moo doon wax ci kàddu sëriñ bi euh, mu mel ne kon <clears throat> li ñuy def rek mooy ñëw nag ci yeggale programme bi ni nu ko fas yéenee doxale ci ajjuma ji ak gaaw bi ajjuma ji animation xasida lay doon ak durus samedi le 27 avril 2019 huit heures ba douze heures dañuy jàng alxuraanul karim douze heures ba quinze heures ñu joxe bernde yi julli tisbaar quinze heures ba 19h ñu siyaare sëriñ bi 19h ba 20h ñu jublu ci bernde yi 20h ba 21h ñu teerogan yi ñi dalal leen 21h ba 23h la cérémonie officielle bi thème bi mooy taxawaayu daaree daare alxuraan ci société bi 23h ba fajar. mooy guddig maam Cheikh Ibrahima Fall ki nga xam ni moo koy taxawee mooy bay Fall yi rawatina nag Baye Fall Kend mbokk yi kon bis baa ngi noonu samedi le 27 avril 2019 màggalu kër yëlli màggalu maam Cheikh Anta fii ci pencum kër yëlli manel yàlla nañ ci egg ak jàmm ba weesu ko luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu luñ ci dégg yàlla nañ ko jariñoo wasalaamaaleykum wa rahmatullah